413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. invité de la rédaction mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax di am kontaan ceewaat euh, fii di am kontaan également di dalal koo xam ne si nii euh, yàgg na fi ñëw euh, ñu koy yax Mor Faye Mor Faye ñu gën ko xam ci trou trompeur moom nag mu nekk responsable grand parti foofu ca Guédiawaye plus précisément foofu ca Sam Notaire moom la ñu fas yéene àndal tey ci wàllu politique wàllu tollu tolluwaayu réew mi lépp loo xam ne si nii luy actualité rek jëm ci parti boobule dinañ ci waxtaan waxtaanee dama koy bàyyi mu daal di nuyoo moom Mor Faye ñu gën ko xam ci trompeur nuyu naa asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di la fay di sant euh, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax ci invité bi ngeen ma invité quoi di di nuyu sama kilifa Malick Gakou di ko sant bu baax a baax a baax di nuyu képp ku nekk grand parti. Mhm. Eh, grand parti googee lañuy lañ koy euh, doore foofu ca Géejawaay euh, mu mel nag nii boobu de parti Malick jiite ko dooleem dafa wàññeeku lool foofu ca diwaan boobu ñu wax Géejawaay. nga xam ne fa la fekk baax. non grand parti dooleem wàññeekul wàññeekul géejawaay dooleem wàññeekul da nga naan kay dooleem dafa gën a dafa dafa gën a am doole géejawaay. lu tax nga wax loolu kenn déggatu ko grand parti. non pourtant ñoo ngi koy dégg ñoo ngi def ay social Malick ñoo ngi def ay social commune bu nekk moo ngi lay jox ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay bagages yu am solo. comme lan lan mooy seen ah, activité lan mooy seen activité jamono bi euh, ak Guédiawaye non jamono ji moom Malick moom day def euh, chaque weekend léeg-léeg ci àll bi la ko doon def léegi instant yi moom dafa ñëw Guédiawaye boo gisee gars yi sax lu tax ñu gëñ ko ñu gën ko dégg sax Guédiawaye fan yi dafa nekkoon ci àll bi mm-hmm. dafa def social yu am solo ci wàllu santé quoi mm-hmm. Mm-hmm. wàllu santé mais ñu bëri dañu jàpp ne Malick Gakou euh, doole bi mu amoon dafa wàññiku euh, euh, ci côté même financièrement kenn gisatu ko ci yenn yenn yu bëri ba waral moo tax tekk tekkaaralam gi nga xamante nii moom la nekkee. xam nga dafa changé système bi nag léegi ko maanaam dafa changé système bi ni mu doon liggéeyee ak léegi da koo changé ko loolu moom moo tax xam nga léegi kam doon jox benn. comme doon jox benn léegi defagul ko day jël day jël lépp boole ko waa géejawaay parce que boo ñëw lu waral lu waral changement boobu. waaw non boo ñëwee boo ñëwee ci wàllu social boo ñëwee ci wàllu social nga dem ci nga dem ci ci communes yi. Hmm. jox leen wàllu santé presque valeur bu 10 millions. Hmm. boo ko defee kay defal nga ko géej ay gépp. 10 millions. valeur bu 10 ci wàllu santé. boo ko defee defal nga géejuwaay yëpp doo yëkkati benn yëkkati benn somme nga jël nga nga jël kenn jox ko kooku amul sens. mais 10 million du dara ci du du dara. ci ci waaye non def ko ci benn commune rek. nekkul nekkul nekkul nekkul nekkul lu bëri ah. Euh, trompeur non def ko ci benn commune rek quoi. Mm-hmm. xam nga bu doon da nga koy def ci benn commune ñu wax waaye. maanaam def ko ci benn commune def ko ci benn commune. mais mais mais il faut nga nangu ne euh, seen doole moom grand parti moom euh, daanaka doole. non gisuma loolu nag pour man wàññi ko nag bu baax a baax a baax. foofu parti dafa gën a am doole géejawaay. nan ngeen di seen doole yéen nan ngeen koy wane au niveau de géejawaay. non wala feneen sax fu dul géejawaay. ñoo ngi koy koy wane ñoo ngi koy wane ñoo ngi def ñoo ñoo ngi liggéey daal ñoo ngi liggéey liggéey bu am solo géejawaay bu démb rek lañ mujjoon réunion réunion lañ lañ mujjoon def euh, réunion des jeunes ñoo ko def samedi mhm. d' accord euh, am na lu ñuy ruumanaat euh, di ci tudd président Malick Gakou mu jiite seen euh, parti boobu nga xam ne si nii moom mooy grand parti ñu bëri jàpp ne jamono bi moom takk na ay bagaasam ba pare takk na walis yi lan moo des dem ci Macky Sall da nga koy dëggal. takk na ay bagaasam dem ci Macky Sall. dafay dem ci Macky Sall dafay bëgg a dem ci Macky Sall waaw non c'est que xam nga yow ma fàttali ne que ñiy seetaan yow ku jege Malick Gakou nga. waaw non xam ne si ni pratiquement doo toog 2 jours te gisuloo ko wala du ngeen toog 2 jours te te leen donc war nga ci mën am yenn information yi. ci xibaar boobu waaw non dañuy dañuy dañuy gisante. parce que man ak moom dañuy liggéey. Mhm. koy liggéeyal nag il faut que ngeen di déggante di gisante. Mhm. parce que man dama ñëw ne sama lépp Malick la sama kilifa la moom laay liggéeyal liggéeyalu ma kenn ku dul Malick man damaa pare Malick ñun dañ ko wóolu. Mhm. wóolu nañ ko am dañ ci moom confiance maa leen duñ dugal ci duñ dugal ci jéeya moom luy lu maanaam lu Sénégal avancé moom ci yooyu lay dox ak lu Guédiawaye avancé Malick ci loolu lay dox kon ñun Malick euh, képp ku mu àndal rek ñun pare nañ pour ànd ak Malick Gakou parce que ñun xam nañ ne du ñu dugal ci loo xam ne daf ñuy gaañ ëllëg quoi. mais mais mais mais rumeur bi yaa ngi koy dégg moom pare na pour dem est-ce que da ngay dëggal que ni Malick Gakou tey euh, dafay dem ci Macky Sall. xam nga dem ci Macky Sall euh, maanaam dem ci Macky. pour Malick dem ci Macky pour man du dem ci Macky sax xam nga pour man lan la dem fële xool nu affaire yi avant parce que ñëpp xam nañu dëkk bi nu mel hmm, yàgg naa mel noonu ñëpp xam nañu dëkk bi nu mel dëkk bi dafa gën a metti te ñun am nañu yaakaar ne Malick xanaa bu bis bu jegee Macky affaire yi dina changé ñun loolu rek lañ ci kii. mais moom mi ngi fi woon te dara changé wu loon mais kon na ci biir gouvernement Macky euh, ba démissionné. waaw non boo gisee mu démissionné dañ leen tegal ay sart yoo xam ne gars yi nangu. sart yaa yi moom bu ñëwee dina mën na ko changé mën na ko changé ah, am na yu bëri yoo xam ne nag moom il faut que nga toog ak moom mu gën la ci leeral. moom Malick Gakou waaw moom Malick il faut nga toog ak moom mu gën la ci leeral xam nga ñun ay ndaw lañ rek dañuy liggéey ak. mais mais du ñàkk ne di ngeen am information yi information yi trompeur xoolal bu ñëw ba fii di di ragal wala ngay am looy looy looy looy looy looy looy looy looy bàyyi xel quoi wax ñu li nga xam ne si ni tey moom moo nekk foofu au niveau euh, euh, ci seen base foofu nga xam ne si ni tey dara ump la fa. waaw non lu ma yow ci moom la ñu sabe léegi Malick yow lu ma lay expliquer dama ne. Hmm. Malick ñun ak fu mu ñu mën a yóbbu ñun dañuy dem parce que. ñun Malick Gakou ñun wóor nañ ko waxuma waxuma loolu man wax xam naa loolu xam naa ne fu mu leen yóbbu ngeen dem mais dem gi ñuy ruuma mandaat dëgg la wala du dëgg dem gi ñuy ruuma mandaat daal Malick bu demee defaral ñu Sénégal defaral ñu géejewaay ñëpp gis seen bopp ci demu Malick bi ñun dañ koy nangu ko parce que Malick wóolu nañ ko ci lépp mu dem liggéey ak liggéey ak Macky Sall affaire yi changé mhm. Malick Malick mën na dem ci Macky affaire yi changé danaan ko fi ñu ko dem d'accord Idy 2000 Idy 2019 muy coalition boobu nga xamante ni ca ngeen bokkoon euh, ba tax ci élection yi ñu génn sax muy élection présidentielle yi mhm. euh, moom ngeen àndaloon ginnaaw bi ñu leen recalé ci li nga xamante ni moom mooy parrainage yi alors euh, coalition boobu da ngeen ciy génn wala ci ci ban tànk di taxawee. donc kii boobu moom ban tànk bi ci ciy taxee pour am na yoo xam ne yu bëri pour pour pour pour pour domaine boobu. Mhm. kooku dañ koy bàyyi ak kilifa gi mu tontu ci amoo ci lenn lenn lenn loo xam ne si da ko si tontu daal. waaw boobu moom awma lenn lu ma ciy tontu quoi. Hmm. parce que euh, kon bu boobaa damay ñàkk kilifa quoi. Mm, d' accord euh, d' accord euh, respecté naa ce choix euh, parce que tamit duma la poussé ngay wax loo xam ne si nii tey bëgguloo ko bëgguloo ko wax. Mm-hmm. waaye tamit dañuy gën di xuus ci waxtaan bi ba tey muy mairie Guédiawaye mairie Guédiawaye bu mu perte ngeen ko sàggane woon ngeen ba perte ko 2014 Aliou Sall ñëw xaw ma lu mu leen jox jaay leen xaw ma xel leen jaay xaw ma lan ba ngeen ñàkk ko erreur boobu mooy erreur bu ngeen doon bu ngeen mësul commettre ci seen ci seen wàllum politique. Euh, tey mu mel ne que ni géejawaay ba léegi mu ngi leen intéressé wala intéressé wu leen mairie bi. non mairie bi mu ñuy intéressé mairie géejawaay ba léegi moom ñuy intéressé Malick ko amul dara lu dul géejawaay amul dara lu dul géejawaay boo gisee nii nii mu mu mu mu par mu pare pour liggéey Sénégal liggéey géejawaay di def ay santé lu ne mu koy def. Hmm. kon kooku maanaam mënul bàyyi géejawaay quoi parce que géejawaay boo déggee ñuy tudd géejawaay rek Malick Gakou moo tax ko quoi. Hmm. waaw bu dee wàllu mairie bi moom na sa xel daal quoi ñun dañu bëgg Malick. Eh, mairie bi lu tax lu tax lu tax Malick Gakou ak fi li ngay wax fii li nga fi wax lii ne Malick Gakou euh, géejawaay ak fi mu ko toll. géejawaay euh, li mu am géejawaay moo ko gënal ba pare bàyyi benn Aliou Sall boo xam ne si nii tey ma nga jógee euh, Fatick xawma fan la jóge ñëw jël foo xam ne si nii tey foofu la la jàpp ne moom moo ko moom wala foofu la jàpp ne tey léppam foofu la mu bàyyi ko pare naan amul lu dul géejawaay est-ce que loolu du du xeeb sa bopp wala du euh, du nan laa ko mën a tuddee loo xam ne si nii daal bàyyi na loxoom bu baax a baax foofu noonu. non nit ki maanaam bu defee benn affaire. bu defee benn affaire mu am erreur dañ ko ko war a nangul quoi parce que lu ne def na ko fa. kon jàpp ngeen ni erreur la. ñun xam nañ ne loolu erreur de politique mënul ñàkk. Hmm. képp kuy def benn affaire erreur mënul ñàkk kooku dañ koy nangul Malick erreur mënul ñàkk parce que Malick dafa amoon ay kilifa ay Moustapha Niass kilifaam la woon te boobu nag dafa tombeek nag Malick nekkul ci partem hmm. bu doon Malick nekk moo ngi ci partem kenn kon problème boobu du am. Hmm. loolu mënul ñàkk quoi erreur boobu du erreur lu Malick sax boo xool quoi. mais mais euh, mairie bi mu ngi leen di locales yi ñu ngi ci jëm ñu ngi jëm ci locales yi daanaka ñu ngi wax naan euh, dinañ ko reporter dinañ ko repousser wala duñ ko duñ ko repousser mais lu ci mënti am daal moom dina am est-ce que mën nañ jàpp ne Malick Gakou tey dina bokk ci élection laaj mairie bu Guédiawaye non man moom am naa yaakaar ne ne Malick du ma sax ne yaakaar Malick lu ñu bëgg mu taxawal ñu euh, mu dem élection récupérer ñu Guédiawaye yoral ko boppam quoi yoral ñu ko ñun Malick moo ci doy kooku moom amul sax laam-laamee quoi kooku moom euh, waa Géejawaay gépp ñoo ngi pare di ko ci xaar. baa duñ baa baa du def ni mu ni mu defoon 2014. bàyyi ba ñëw jëm ci rek mu jëlaat lépp jox Géejawaay bëgguñu kenn mu yoral ñu ko. Hmm. bëgguñu kenn mu yoral ma ko ku dul Malick Malick Malick rek rek rek moo ci doy. te bu yeboo mu jàppal nañu ci ak lu mu ci mën a jàppale quoi mu géral ñu ko yoral ñu Géejawaay affaire yi changé ku ci nekk nekk ci ay conditions Géejawaay mel woon nii. Hmm. Mmh, d'accord ñu gën a xuus ci waxtaan bi daanaka li ñu amoon ci ay point euh, jukk nañ ci li ci ëpp dañuy ñëw ci wàllu actualité muy euh, mbëkk mi di immigration clandestine nga xam ne si ni euh, ndaw yi ñu ngi jël ay gaal di wutali Europe di ci ñàkk seen bakkan mu nekk nag lim bu takku boo xam ne si nii tey ña ngay suux ci biir ndox ma yow nga nekk jeune nga nekk koo xam ne si nii tamit da ngay da ngay da ngay liggéey ci wàllu boobu chaque jour di lay gis au niveau de Guédiawaye ngay ngay ci wàllu li nga xamante ni moom mooy ay politique tey. naka nga gisee phénomène boobu nga xam ne si ni tey mi ngi yóbbu ay bakkanu ndaw yu bëree bëri fii Sénégal. waaw loolu loolu loolu boo ma ci laajee sax dinaa ci sawar a tontu samedi prochain sax kooku doon nañ ci def euh, samedi bi passé doon nañ ci def euh, ay réunion waaw doon nañ ci def réunion toog doon waxtaan ci loolu. Mm-hmm. ñun ak suñu coordonnateur li ñuy wax Massamba Diop vraiment jàmbaar la maa ngi koy félicité ci ndombel tànk bu ko président jox quoi. Mm-hmm. doon nañ ci waxtaan ci wàll woowu quoi parce que vraiment man. Euh, su ma soñoon ndaw yi ñu toog fii Sénégal ñu liggéey parce que am na loo xam ne dara jaru ko. Hmm. jaar ci ndox di dem di dem ay Espagne lu ñu dugg ca dara jaru ko man moom xalaatuma ko def te képp ku ma déggal doo ko def quoi am na yoo xam ne dara jaru ko quoi nañu toog fii liggéey xam nañ ne am nañ yaakaar ne ne dëkk bi. bu ci Malick dugalee loxoom affaire yi dina changé ku ci nekk gis ci seen bopp ñëpp toog liggéey ñu jaar ci voie normal bi quoi. Hmm. trompeur yow li nga fi wax yëpp bi ma la déggee moom mooy Malick Dem rek Malick Dem mais bëggoo ko assumer Malick moom dina dem moom bu nga assumer nga ñàkk nga wax sànq nga wax lépp gis nga mooy Malick moom pare na sànq bala yaa ngi wax nag ñemewoo ko mais yaa ngi naan Malick gis nga gis nga ñun xam nga lan la ñu war a def Sénégal mm-hmm. ñëpp xam nañ ne Malick ñëpp dafa doon nit koo xam ne ne yow mënoo amul trace Malick ko amul trace Malick Gakou du xaste du dugg lu ci yoonam nekkul mm-hmm. Malick ko liggéey lañ ko xamee Malick liggéey lañ ko xamee quoi. man bu meloon ne neneen ak lu ma ànd ak moom ànd ak moom damay taxaw ne ne Malick lii rek lii lii mooy defum ko mm, defalu ma dara dañoo séq liggéey mu nekk sama grand quoi. d'accord politique sax boole wuñu quoi. d'accord li ñu cërloon ci waxtu daanaka euh, jeex na xam naa dama lay bàyyi nga daal di euh, def sa kàddu boo xam ne si ni tey moom ngay tëjee ñu ci jotaay bi euh, trompeur ñu gën ko xam ci Mor Faye wala Mor Faye ñu gën ko xam ci trompeur. waaw loolu dëgg la maa ngi sant ñëpp di leen gërëm yéen bu baax a baax a baax. Mm, mm. yéen fi ñu déggante maanaam di ngeen ma koy yombal. Mm-hmm. waaw yéen vraiment ma xuus suma yow ak suñu caméraman bi. Mm. amuñu seen fay quoi gërëm nañ leen bu baax a baax a baax di ñaan yàlla fii mu doon. ay tele yi télé quoi. amiin amiin amiin waaw amiin di sant tamit euh, ñëpp di sant tamit waa Géejaay gépp di sant Souley Si sama grand bu baax. Mhm. di sant tamit suñu mouvement bi mënul ñàkk ma leen seen ay Omar Gueye ngi leen di sant Pape malik mhm. di leen sant bu baax a baax a baax ay Papa Sall laay bari. su ma limee damay juum suñu présidente Ami Collé ñëpp maa leen sant quoi di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax. Mhm. ayca mi ngi noonu trompeur ma eh, ngeen déggee trompeur bu ko fàttali ko wala bu ngeen xoolaatee ci archive yi eh, di ngeen ko di ngeen ko gis di ngeen ko xàmmee donc moom la moo tey jii mu mujjee ñëw nekk bàyyi bàyyi bëre. nekk léegi politicien politicien bu mag yàlla ñu lay jaajëfal bu baax. Eh, ci dikk bi nga xamante si bi nga xamante ni tey jii ñëw nga wuyu ko eh, di jaajëfal libaas moom moo nekk ci wàllu eh, li nga xamante ni moom mooy technique bi ak ak réalisation bi di di leen gërëm yéen ñi nga xamante si yéen ñuy topp nekk ci biir réew mi ak bitim di leen jox dig daje ci lu yàggul ak beneen invité jàngeen jëf ku ne xam na ñu matal am ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit cent pour cent naturel moo di petit cola bisap